bon jërëjëf Dóor waar je pense que li ñuy wax ci parti socialiste voilà allié yëpp. du rek parti socialiste rek. ñoom ñëpp ñuy dund la même situation. Euh, d'ailleurs ce débat du débat bu bees yaa ngi fàttaliku bi Khalifa di am problème foofu ak Tanor di am problème d'ailleurs ak Macky c'était le même débat. mm est-ce que dañuy am candidat ou pas est-ce que dañuy continuer compagnonnage bi ou pas mm-hmm. loolu débat bu yàgg la euh, je pense que bi ñu théoriser ñoom bi Macky di ñëw au pouvoir ñoom dañoo ànd deuxième tour liggéey bi Macky di faluwaat aussi dañoo ànd liggéey ñoom mm-hmm. ci biir élection yi maanaam Tanor moo ko théorisé woon d'ailleurs euh, gagner ensemble gouverner ensemble ñoom logique boobu ci lañ nekkoon jusqu'à présent c'est une logique boo xam ne ñoom lañ ko choisir léegi nag évidemment euh, inconvénient bi mooy lii mooy que APR dafa dem ba si biir APR presque akimo presque lépp présidence la république mu gi jël présidence de l'assemblée nationale présidence conseil économique social environnemental ainsi euh, bon euh, ainsi de suite je pense que ñu ngi bàyyil Aminata Mbengue Ndiaye nu mu tudd ah HCCT lañ ko bàyyil lañ ko bàyyil ne serait-ce que ça c'est vrai que par socialiste ne sa plaint pas am na ay responsable am ministre am na ay responsable yeneen aussi mais inconvénient compagnonnage bi c'est vrai que c'est bien mais boo àggee ba stade bu mel ni nga xam ni eh, kiy jiite woon mooy APR ak bopp APR nekkatul eh, nekkatul candidat da ngeen di contrainte maanaam logiquement bu ngeen réfléchir te instance yu ne deen réfléchir je pense que maître euh, honorable mu koy wax sànq pour xool yan position la ñu war a adopté mais la meilleure stratégie actuellement mooy que dañuy condamner rester ensemble. ils sont ah oui oui au niveau de Benno. Mm. logiquement normalement actuellement nii fii ñu tool parce que le temps presse. six moo ci des. gars yi li ñu logiquement li ñu war a def mooy. wut un candidat consensuel au niveau de Benno liggéey ensemble parce que fi mu nekk nii képp ku détaché wu euh, dem ut sa candidat mhm. da nga am problème cohérence du discours parce que da nga partager le bilan jusqu'ici féliciter le président ci li nga xam ni def na ko féliciter ko ci bilan partager bilan ba bëgg a dellu nag ka posé wu posé wu candidature face aux Sénégalais du yomb. kon su ma la déggee bu baax waa Benno seen intérêt mooy. ñu nekk benn. oui d'ailleurs le président Macky Sall bi muy wax ak maire yi en réalité ñëpp la doon waxal lu mu wax maire yi daf leen ni vous êtes on est condamné à rester ensemble unis on continue à gagner <laughs> bu ñu uniwul on perd tous. loolu ñëpp loolu ñëpp la doon waxal non seulement maire yi la doon waxal mais waa APR mais aussi mhm. waa alliés yi. alliés yi mooy la la waa AFP. AFP waa LD. waa PIT hmm. waa PS. E ñoom la majorité élargie ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñoom Aïssata Tall Sall ainsi de suite ainsi suite mais restons ensemble cherchons un candidat nañ ko pousse tungoom ko jàppale ko mu gagné ñu continuer di gérer. defuñu ko ku ci jéem a dem ku ci jéem a dem euh, yow rek rek rek. mais da ngay am problème discours cohérent mm-hmm. face au candidat de de Benno et face à l'opposition mm-hmm. parce que Mimi Touré gis nga bi mu Mimi Touré sax teel na dem mm-hmm. mais teel li muy teel teel a dem teewul gis nga ni mu amee problème pour ñu accepter ko lu ne yàq nañ ko ñu ñu ko koy yàkk di ko ñaawal di saboter et cetera donc moo lay wan difficulté tâche bi c'est-à-dire que boo compagnonné ba si fii c'est vrai que bi à l'époque mën nga ne y a des bu la neexee mën nga réfléchir au sein d'un parti nga ne ah y a des limites il faut d'ailleurs Wilane mhm. Wilane euh, yàgg na Kajoor mu ngi koy fàttali yaa ngi Wilane souvent day yenn saa day tergiversé yenn saa yi mu ni non yenn saa yi mu ni oui <laughs> donc donc <laughs> di tergiversé gis nga AFP mm. euh, Sarr donc jël na ay disposition ainsi de suite loolu yàgg na fa mhm. mais je dis socle Benno je pense jusqu'à preuve du contraire pour man dañuy rester ensemble man fi ma